ci fan yi dañoo xaw a tiit ci mbirum géej gi nga xam géej gi mu ngi lekk di ñëw rek yoon wi diggante ak yoon bi léegi motul deux mètres alors euh, yuuxu nañu ba sonn looloo tax ñu obligé ñu ne ñu invité médias yi ñu ñëw wax ndax bon les bonnes am mun a ñëw dimbali ñu ci mbirum géej gi amuñu doole suñu doole moo dini liggéey local bi ñu nekk nekk di def nii loolu dañ koy def en attendant rek ñuy xaar état bi mun nañu jàppale parce que li fi nekk ci doomu aadama dafa bëri torop torop torop te géej gi mu ngi avancé rek di ñëw xeet boo xam ci biir àdduna ji mu ngi fii ñoom ñëpp tefes benn tefes bi rek la ñu yaakaar te ba ngi ba ngi doole de bi fu mu ne amatul yi ndox bi jot na leen bu passé fi essence bopam duñ ko am té essence bu am lé ñi duñ duñ mëna dem geej donc lola tax ñu nekk di wax pour ñi ñi dimbali ñu képp ku déggé suñu wax ngir yalla ak yonenté bi ngeen dimbali ñu ndax ñu mëna pu gis pousser geej gi mu dem ndax ñi ñi mëna liggéey comme niñ ko buggé li moy suñu problème lola tax ñu simeeku ñew di liggéey tay ah ñu ngi ñaani nguur gi mu dimbali ñu mu dimbali ñu wax rek lañu man amuñu doole bu ñu amoon doole bi géej gi du egg fi waaye ñàkk am doole moo tax ba géej gi si fii ñoom ñi nga xam ne ñoo yore doole bi loola tax ñi dinañ ñaan ñi dimbali ñu ndax géej gi mun a ñu mun a ko pousser lii mooy suñu bëgg-bëgg. xam euh commencé nañ ko constater constaté nañu ko depuis lu yag mais fani yi dafa commencé djegi euh, dayo moy érosion côtière bi donc loolu mota tax ñu woote ndaje pour hol naka lañuy def pour ne serait-ce que euh, phénomène bi bañu ñu ah, mu wàññeeku donc loolu mo la yow pour liguey ak jeunesse bi ak population bi pour ñu jëma a yane solution lañuy trouver en attendant solution état bi nga xamné mom moo moo ñu war a ci phénomène bi. gis nañ ni fii économie bu am solo moo fi sokkeekoo hmm. tey loolu lan la mën a yàq soo koy xayma ah, activité loolu déjà yàq lu bëri yàq lu bëri xam nga euh, économie Kafountine dafa euh, ko ci pêche bi n'est-ce pas ak ci tourisme bi té lu melni érosion côtière da fay lor euh, pêche bi mu lor tamit tourisme bi donc fu mu nekk ni amna acteur yu bëri nga xamné sen seen kay fu ñuy liggéeyee. Euh, perte nañ ko déjà donc li bu naree continuer daanaka euh, activité bi ci bopam moy moy moy moy disparaître loolu mota euh, nek na li nga xamné dafa préoccuper ñep état bi population yi ak acteurs yi ci seen ci boppam. sànq juñu nga né banque mondiale ñewon na ngeen xol xayma naka ngeen di defaraatee mbir mi mën nga ci delu ci ba xam. waaw xam nga état dafa am benn projet création d'une station balnéaire ci loolu la ñu parce que mënoo def installation yu mel nonu te su fekkee ne érosion côtière bi mu ngi mu ngi law donc il faut que ñu seet benn solution la ñuy trouver je pense que ci cadre boobu lay Banque mondiale ñëw xool lu muy def pour protéger côte bi pour protéger plage bi ba tax na li li war a tax yi ñu def seen liggéey donc je pense que loolu def nañu ko léegi euh, mbir mu érosion côtière dafa nekk li nga xam ne dafa dafa phénomène mondial la dafa dafa am doole donc moo tax dafay nécessité ay moyens yi nga xam ne yu am yu am solo pour mun a mun ko saafara. gis nañ ne euh, commune de Kafountine da ngay gis ne pêche bi euh, dafay dugal lu bëri ci commune bi parce que. Euh, activité yu bari fi lañ koy défé donc lolu bu demee ba da fay am impact ci recette commune bi fay impact ci fay euh, dañ koy ressentir donc de gis nañ né ñu bari ñu ngi perdre seen kay donc lolu bu ñu amul fi ñuy liggéeyee du ñu am recette bu ñu amul recette tamit dañ koy ressentir ci commune bi donc je pense que lolu mu yàq lu bari ci euh, commune Kafountine ci économie commune Kafountine sànq laaj lañ la commune bi gagné ci at waaye bu ko wax xëy na est mën nga ñu wax budget bu daaw ñaata la. xam euh, ñun suñu euh, budget bi euh, budget bi ëpp na tuuti 500 millions n'est-ce pas mais lu koy gën a alimenter mooy activité bu fi nekk n'est-ce pas maanaam. li nga xam ne quai de bi daf koy daf koy daf koy jox commune bi ak li nga xam ne qui cadre qui cadre transport hein, euh, euh, taxe sur le stationnement euh, ñu bari fi moy sen activité donc madame le lu nous am comme trando fi moy sen activité donc fi bu doxee euh, ligue bi fay dox fu doxul tamit ñun dañ koy ressentir ci budget bi dañ koy ressentir ci lepp lu ñuy def mais menace bi menace bi euh, euh, euh, fay jour lu bari ci pêche bi parce que fu mu ni euh gis nañu euh gal yu ngi déplacé parce que am ñu fu ñuy fu ñuy teer donc te loolu dafay impacter tamit ci tourisme bi n'est-ce pas donc je pense que gis nañu ensemble que amna une infrastructure nga xam ñu ngi dem amna station yi nga xamné fi fii quelques mois do duñu fonctionner donc lolu suñu jëlul ay ay motuwaay ay mesures dafay également d'embe lor carrément euh, le quai de population Kafountine di service technique qui nga xam ne également le maire qui est le premier magistrat de la ville qui a mobilisé sa population ñu

te napi moo tax kon donc napi bi su ñu demee bu gaal yi amatuñu fu ñu ter il faut se déplacer dem yeneen site wax naa sànq ne Abéné du un réceptacle parce que Abéné ku ne xam ne ne moom zone touristique la ñoom géej gars yi ñoom ñoo forcé rek dem toog it foofu mais c'est pas un lieu de pêche mais kon dang tey jii ñun war nañoo mën a def de telle sorte que tey jii gaal yi mën a am foo xam ne ba dañuy teer plage su amul gaal du mën a teer

Euh, population yi euh, lu ñu gis ñom vraiment def ñoo doy parce que tey jii ñom dañoo dem ba xamni manam maanaam seen activité bi seen bop ñom dañ ko maanaam euh, géej bi mu ngi koy menacé kon ñom buñu démé demee ba xam ni ñoom bi mu ngi menacer seen activité ñom ñu jógal seen bop cela veut dire que c'est une prise de conscience bo xamantene population yi seen bop ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy jànkonte donc tey jii ñom buñu joggé ak seen moyen bop sans financement ni rien ñu ngi jël seen moyen bop pour ñew mettre ñu ñu ñu teg loo xamante ne day tax maanaam avancé maire bi ñu mun a ralentir yeneen avancer loolu ñun daf ñuy doylu moo tax nag tey jii nii ñun ñu ngi leen di remercier di remercier aussi la presse yi nga xamante ne ñu ngi ñëw di di di xool li nga xamante ne loolu la population yi nekk di def